jërë ngeen jëf li Matar Seck Mboro ne woon dara gënta métti ci àdduna ànd akub yambar tey bañ jikkoom feeñ loolee la Souleymane Jules Diop gis ci Amadou Ba mi Macky Sall la Bokk Yaakaar ne seenub candidat bi l'observateur moom Souleymane Jules Diop ambassadeur bi teewal Sénégal ci UNESCO moo ne woon démb ganuk émission Grand Jury ci rajo Futur ba ñu ko laajee lu mu xalaat ci candidat Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba ca la leen ne man moom la àndal à 100 pour cent te loolee du tey dafa yàgg waaye Amadou Ba mi ma gis bu dee moom ak moom Yaakaar gagné guñu ay élection Souleymane Amadou Ba wanewul dara luy mën a tax askan yu mën a gëm ne mën naa jiitam réew Amadou Ba tooy na Amadou Ba géey na Amadou Ba boole na yàcca gesar dóorul fayul mu ne dafa war a jóg di dem ci nit ñi dafa war a rassurer majorité bi ko jiite ku am ay qualité la waaye li mu nekk bu ci jugul présidentielle 2024 yi bu ñu ko séqi ak opposition bu organisé dañuy wulli source nañu Souleymane Sul Diop nee Amadou Ba mii ñu gis ñoom ñi ci majorité bi tàmbali dët mu mel ne ku jaaxle ci xët mu njëkk réew mi quotidien journal bi bind ne gis na xaat defetu waa Benno Bokk Yaakaar ci présidentielle yi 2024 yi journal lay bi di Amadou Ba ba di ko wax feneen mooy Abdoulaye Bibi Ba dalul am xel te su moytuwul dana yàq benno gi ci biir Benno Bokk Yaakaar ndax bi ko Macky Sall tànnee ba léegi def ko candidat ñaxtu yi xultu yaa ngi ne kurru ci suñu biir Souleymane Jules Diop mi wax démb ci grand jury bu RFM ne dañoo war a reporter élection présidentielle 2024 direct news a jàpp na ne lu état bi di rumandaat ak di xumtoo moom la Souleymane Jules Diop ca kaw ndax naar bu ndaw lu mu wax ca xayma ba la ko déggee journal bi mi ngi laaj lan la état bi di tiit ak di patpati ba tax mu taxaw ci tànki bëgg report élection présidentielle 2024 ndax ak moo gënoon a ak ñëw ne ko danduma 2012 rek dara gënu ko fi woon jaxasoo te terewul bi ñu fi waree organiser ay élection dañu ko def Souleymane Jules ni ñu ci point actu réewum directeur général bu ANAMO di xamal ci yéenekaay bi ne li ñu war a def mooy toog waxtaan amal ultime dialogue waxante dëgg lu mu naqari naqari lu mu wex wex ñu waxante ko ku ne jàngee ca journal bi mi ngi ñuy wax it ne kii di Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp ak Alaaji Malick Gakou ñoom bëgguñoo dégg waxi reporter élection décidé nañu dem ci élection yi ba jeex tàkk ay élection yu leer naññ ay élection yu ñu dul boddi kenn Vox Populi nee nañu moo ci fanweeri candidat ak juróom ci présidentielle yi 2024 yi booloo taxawal kuréel gu xutti seen tànk tubéy ci présidentielle yi ba lépp jaar ci yoon tir bi nañu fanweeri candidat ak juróom ci présidentielle yi takku ba dëgër fas yéene taxaw jàmmaarloo ak Macky ak waa këram waa këram yi moom Macky kenn ci ñoom di Abdoulaye Daouda Diallo président conseil économique social environnemental point actu nee nañu ngemb na Mamadou Salif Sow directeur général des ASP dooleel ko ngir mu renforcer Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Ndakaaru xëye ba di ñu yeggee réalisation yi état bu Sénégal def ca dëkk ba le mandat xëy taxaw ci courant ba ca Kédougou bokk na ci ay investissement yu rëy yu waa ASER di agence électrification rurale def ba ci convention bu ñu def ak commune bu Sabodola ànd ak entreprise bi di Sabodola Gold Opération mu jur 47 kilomètres ligne moyenne tension fexeet ba dugal courant bi ci juróom-ñaari localité localité bu Bargny gaalugloo ca ga fa déparé woon doon dem Espagne te farteere ca gàddaay ga ca Géejawaay libération wax ne am na ñetti néew yu géej gi goqi keroog ca gaalugloo ca ga ca la ñu ne woon